delloo siyaar. tey ki nga xamante ni mooy Niang Baal dem campagnat yóbbu ay ndogu. Mhm. waaw waaw xam nga Niang moom day sunu nit. yàlla def ni moom lépp lu mu nekk. ñu si ciy nekk. donc démb rek. waaw démb rek la ma woo ni ma sëñ bi ah dana war a dem campagnat defar ay teraanga. man ko ah loolu de rafet la de. donte am naa fu ma jëm de mais dama koy yebbi ngir yow pour ñëw ñu taxaw loolu ndax loolu dafa nekk initiative bu rafet. ndax ña fa nekk. bonuñu yàlla moo bindal ni ki bindal loo xamante ne da si war a jaar mais loolu noonu da leen si ñaan saaboro mi nga xam ne moo leen fa yóbbu yàlla leen fa yàlla génn di rafetlu li ñang di def torop lii moom ñëpp dañ si war a taxaw sax si ndax lu baax la ñu ngi ciy kontaan te bu nekk ci wéru génn fa mhm. euh, xalaat ne kat am na ñoo xamante ni am na ñu fa nekk am yoo xamante ni dañ koy soxla te di ko yittewoo mhm. comme que nag jot na fa jaar mu ne dama leen koy defal lan ngay wax ñeneen ñi nga xamante ni jaar nañ fa wala am nañ moyen war koo def te defuñu ko waaw waaw si loolu laa lay delluwaare gis nga moom dafa nekk nit ku xelu la nit ku xel maanaam bàyyiwul fa mu nekkoon bi mu ñëwee dund na dundiin bi gis na moom mënoo ko wax loo xamante ni yéem na ko foofu ba ba nga xamante ne nag bi mu génnee am yëg-yëg foofu ni fàttewul ña fa nekk defal ay terangaam pour delloo si leen ko di ñaan saa borom ñëpp nan roy si lii ndax lii mu def dafa rafet ndax ña nekk fee ne billaay walaay taalaay kenn bonul yàlla nag moom mooy dogal ay mbiram nu mu neex la koy kiwee comme moom yàlla suturaal na ko mu am xel boobu noonu ñoo ngi koy ñaanal yàlla bu mu nekk première defam at bu ne yàlla na koy mën a def di ñaan ña fa nekk yàlla na leen yàlla génn ñi fa duggagul tamit yàlla fa saa borom musal maa ngi leen di jaajëfal wasaare TV dañ leen di suivre yéen waaw ndax ñun suñu lépp làmbala di kontaan di ñaan saa borom yàlla yàlla doole seen seen bi seen YouTube bi yàlla ko yàlla gën a saxal yokk ko dooleel ko ba fu àdduna ñëpp di ko dégg di kontaan si yow. waaw non affaire bi nag ba nii méttiwul ko waa ba nii méttiwul ndax loo defee ak yéene nekkul loo xamante ni day métti ko waa ba pare nga def ko gis say sang ñëpp jàppale si. ñoo xamante ne xam nga da ko dundoon ak ñoom comme sama waa ji nii moom mi ngi woon Sambourkat yàgg fa def fay at xam booy fii booy boo fu gis rek bu dee benn un mois sax jaar fa ba pare boo yëpp jàpp si affaire bi lii ne nag xam nga mi ngi doogoo nekk tey ñu ngi koy doog a def mais bëgg nañ di ko def chaque année ndax campénal musuma jaar campénal mais man dafa am samay grand frère yu fa nekk. Mhm. ñu tëj leen ay tëj yu métti si loo xamante ni defuñu si lenn dañ leen tuumaal suñu borom teg leen nattu. Mhm. di ñaan yàlla tegil leen nattu boobu noonu. ñoo xamante ne dañ leen tëj ay longopen ay vingt ans quinze ans xam nga loolu dafa métti quoi mënoon nañ njikkee cent boo xamante ne nii dañ fa def ay at mais noonu non nanoo bàyyi waa cent dem campénal mhm. xam nga yóbbu fa benn colis bu ndaw la nii rek loo xamante ni xeeb nañ ko trop quoi. xem nañ ko trop yóbbu ko campénal gars yi nag jàpp si bu baax di leen ñaanal yàlla teggil leen nattu bi te suñ ñibbisee ñu bañ a def loo xamante ni dañ fay delluwaat xam nga ndax ñun dañ ko ñam mu metti torop dootuñu delluwaat barki alxuraanu karim dootuñu si delluwaat ndax xam fu nu nit ñi féetee xam nga soo soo tourné gis sa sang gaynde nga gis ko sa wet noo ni nga am kerse pour def loo xamante ne nii da lay delloowaat foofu noonu ko waa mais bu dee danoo ñibbisi ñoom ñu dem xam nga suñ leen di nuyu sax ñu nuy daw kon dañuy dellu si lu nu nekkoon xam nga mais def si loo xamante ni neexul yàlla neexul say waajur loolu ñaanuñu yàlla di si dox ko waa ñu danoo bëgg lépp lu ñuy dox rek day neex yàlla neex suñuy sang xam nga neex neex kilifa diine yi neex ñëpp ci loolu lañ bëgg di dox ba sàngook suuf di ñaan yàlla gaayee nee suñ génnee naaj suñ ñëwee fekk lii ñoom dañ siy gën a jàpp dañ siy gën a jàpp lii nii dama bëgg a gaa yi jàpp si bu baax a baax a baax barki alxuraanu karim loolu laa bëgg sama waa yi nag man ak moom dañ ko dundandoo woon da doon ñëw pour seet si ma nii rek tombé waale si nii waaw waaw bëggoon na nga laaj ay affaire moom xam na affaire yi nu mu demee bu baax a baax a baax mu am lu bëri loo xam ne dala koy yaatal. waaw ah, dama koy dama koy ko tënkee bu ñu demee foofu. Mhm. bu ñu demee foofu ñu toog yaatal ci lu bëri bëri. waaw lan ngay lan ngay wax li nga xamante ni moom la Niang Baalo def nii boo ko jëmale fi mooy championnat. non Niang dafa def geste bu nice ndax àdduna amul solo mhm. sa moom mun na fa jógee rek fàtte gaa yi moom deful loolu xam na ne fee dafa metti day gis ñoo xam ne dañuy toog trois mois colis sax luñ coob sax duñ ko am xam nga lépp tar seen côté. ñang lii mu def nii yàlla na yàlla xeeb dolli rek barke Sëriñ Tuubaa def ko ay ati at comme lu mu wax rek léegi-léegi ñun dëggal jubal leeral wét gore wétali gore barke Sëriñ Tuubaa dara jarul ñu jaayat suñu ngor si àdduna dara heurel nag mënul ñàkk si doomu aadama ndax doomu aadama sax du ñetti war ñu ko sóoraale saa yoo yeewoo hôpital dee kaso waaw kay si journée bi mën na am nag maanaam loolu dama demoon rek pour jàngat àdduna ko waa xam nan nag dana xam fu ñuy teg suñu tànk ñang li nga def nii yàlla ñu ko def ay ati ati ati at billaay wallaay taalaay yow xol bu naat ña yow Baye Fall ña yow champion ña borom baax ña yàlla na yàlla xeeb doole waaye yàlla na la yàlla jàppale yàlla aar la yàlla sàmm la nga yàgg fi comme géej barke sëñ Fallou kontaan si yow rek. jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax tey nag ñoo ngi fi buntu campénal ànd fee ki nga xamante ni ni mbër la ñu koy wax ñang baalo nekk kii doo dooraat dëkk Cambérène tey nag mu ñëwoon andi fi ay don yoo xamante ni ay ndogu la Euh, wala boog yu ñu mën a jëfandikoo ci biir mu ànd ko fii bu biir camp pénal bëggoon nañoo dugg nag waaye malheureusement euh, gars yi dañoo xaw a kii mais amul benn solo tey nag ñu bëggoon mu mu mu wax li tax mu am initiative wu def loolu ak lan moo ko xiir tey mu àndi ko biir camp pénal ñang nuyu naa. oui maa lay fay maa ngi lay fay waaw tey xam nga tey dañ fi ñëwoon indi fi ay benn don loo xamante ni xeeb nañ ko trop. mais mais rëy na si ñoom xeeb nañ ko ñun mais rëy na si ñoom indi woon ko fi ànd ak ànd ak sunu grand sunu sëriñ sunu xarit xam nga muy gaynde gi sunu capitaine sunu DG billaahi wallaahi mënunoo dem sans moom waaw mënunoo dem sans moom lépp lu nu nekkoon saa ko xalaatee dañuy dañuy bàyyi si loo xamante ne nii neexul yàlla neexul suñuy waajur moom lu tax ñu bàyyi loolu moom si la bokku ndax ñu ngi déggante ak moom téléphone mu ngi nuy conseil sunu lu mbooloo lu mu rëy rëy rëy rëy ak lépp lu mun di sol bu dee dañoo sunu bopp bi dafa dafa tilim wala lu nu sol dafa tilim wala dañoo sol ay plastique wala yére boo xamante ni xeebu na moom du xeeb xeeb quoi moo tax ñu jàpp ko kii nañ koy ñaanal ba pare jàpp na si affaire yi bu baax a baax a baax a baax a baax billaahi wallaahi te yëgu ko nag yëgu ko xoolal woowu ko téléphone sax wax ko ko yàlla xam na loolu yow tamit waxi noonu quoi waxi nopp gars yi fii gis nga ñii si lan bokk muy waa campenal si lan moo tax tey xam nga ñu ànd ak suñuy xarit suñuy raq ay ñoom Baye Laye ay ja Malick xam nga libaas ñëw fi gars yëpp soo limee da ngay juum ñëwoon fi pour indi fi benn benn benn benn don quoi dañ séntu nu si nag fayu kenn fayu sunu borom lañ siy séntu barke alxuraanu karim defuñu ko. ngir ngir ngir sal defuñu ko ngir dara ban koy def dama takk sama seret dugg si dëkk bi sama gars yi ñi joxe cent franc ñuy joxe deux cent ñuy joxe trois cent xam nga noonu ba affaire bi doon benn affaire bu ful ñu jënd ko ay bagages ñëw indil leen ko di leen di di leen di leen ñaanal yàlla teggil leen nattu bi di leen ñaanal yàlla. nit ñi buñ ko daan def dañ ko daan def ci koñ yi. Mhm. ñu defa ay kafe bàyyi ba dog jot. ñu woo nit ñi jox leen ko mais lan moo tax nga andi ko ci biir kaso yi sa xel dem ci loolu. def ko def ko def ko tamit loolu lu rafet la waa mais ñii mënuñu ñii mënuñu jóge fii jéggi tali bi te kenn topp leen ñaari nit topp nu leen wala ñetti nit topp nu leen xam nga man su ma neexee mën naa juge maa ngi jóge ba Cameroun ñëw indi amul kenn ku ma topp kon maa sama liberté ah di leen ñaanal yàlla ñoom ñu gaaw a ñëwaat si société bi gars yi tamit suñ teewee gars yi ban leen bedd di leen daw def nu comme nu nu kii def ñun ban ñibbisee bu doon gars yi dañu daw si kun jublu mu daw la kon tey duñ fi mën a indi ndogu kon amaana tey ñun la ñuy indil ndogu xam nga ndax dañoo ñëw Cambérène Cambérène lañ dëkk dëkku lislaam dëkku maam Seydi xam nga suñu dëkk xam nga dëkku dëkku dëkku kilifa dëkku dëkku dëkk bu sell ñu ñëw kenn dawunu barke alxuraanu karim billaahi wallaahi kenn dawunu gars yi teg nu si yoon gaynde gi daf nuy woo duñu conseillé maam ñang si loo nekk ñoo ngi si tërë ngi ñoo ngi si lii ba yàlla may nu ay komba ñu bëre daan xam nga kon ñu xamante ne ñun bokkaat nañ si affaire bi bokkaat nañ si société bi gars yi dawunu kon ñun waruñu def loo xamante ni daf ni delloo si waat fii nii daf ni delloo si waat fii di ñaan gars yi man lenn laay wax gars yi képp koo xamante ni sa loxo jot na sa ginnaaw moo xam sa doom moo fi moo xam sa doom nekku fi moo xam moo xam leneen ak leneen di ñaan di ñaan gars yi di gëstu ñu caabi féetee ginnaaw ndax ñooñu si lan bokku quoi oui si lan bokku damay faral di dégg ñu naan euh, lu ci bari dañ koy soxla parce que euh, ndox mi ngay yor di ko xeeb di ko sànni ñoom boo leen ko joxee dañ koy jël parce que ñi fi nekk ñu ci bari des fois dañ leen di daw wala doo seen seen mbokk dañuy def ba dootuñu mën dañuy obligé toog téye seeni loxo lan ngay wax ñi nga xamante ne nii ay bonne volonté lañ bëgg nañu jàppale mais xamuñ fan la ñuy def seen alal lan nga leen di wax. di wax gars yi képp koo xamante ni bëgg nga jàppale nit am si am si yoon am si fayu yàlla non naa ñëwal si ñëwal si koso yi surtout si weeru koor gi surtout si weeru koor gii nii ñëwal si koso yi man indiwuma fi coob lan laa fi indi ay naan ay kafe ay yenn sase mu xam sa yi nii ndax man xam naa lu gaa yi di soxla ba may kat am na benn femme boo xamante ni daf ma jox saaku ceeb xam naa ni saaku ceeb du fi dugg xam naa ni saaku ceeb du fi dugg jëluma saaku ceeb bi yóbbu ko sama gaale wala ma jël ko dem togg ko noonoo non dama jël saaku ceeb bi jaay ko jëlaat xaalis boobu noonu teg ko si ndax man xam naa luy dugg fii xam nga ban ñëwee lépp lu ma dugal rek nañ ko jël waxuñu lii du fi dugg nu lii ndax am na loo xamante ni mooy dugg kaso am na loo xamante ni du dugg kaso pour gars yi mën a xam loolu ko waa pour gars yi bëri mën a xam loo xamante ni moom mooy dugg fii nii. mais ñi fi nekk lan la ñuy gën a yittewoo ci loo xamante dañ koy soxla te duñ ci mën a jot. duñ ci mën a jot lu leer laaj nga ma lu am solo ko waa ñu fi nekk ñuy. soxla wunu lekk soxla wunu naan barke alxuraanu karim ñu fi nekk ñëpp soo tijee seen xol xam nga lan nga siy fekk ñibbi xam nga lekk rayul waayo xiif xiif rayul kenn te gaa yu nekk fii ay gor lan ay jàmbaar lan gaa yi lenn rek la ñuy jooy lenn rek la ñuy jooy muy papier libérable bi papier bu weex bi loolu la gaa yi soxla pour jox leen ko ñu xam ne ñii ni libre nañ kenn toppeetu leen dara mais pas ay lekk ay naan loolu noonu nag maa ngi koy wax kilifa bi muy Macky Sall di ko wax xama mu jàppale gars yi fii nii may leen garage si korité bi may leen garage wàññil gars yi seen pen yi ndax fii pen bu fi gën a ndaw cinq ans la campénal fii nii barki Serigne Touba Mbacke amul penu six mois amul penu un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans sept ans dix ans vingt ans ñoo nekk fii fii six mois du fi ñëw fii six mois du fi ñëw un an du fi ñëw deux ans la tàmbalee jëm kaw kon nga xamante ni fii amul pen bu ndaw fii amul pen bu ndaw te cent laa gën a miin fii mënoon naa jël samay affaire yóbbu ko cent mètres dama ñëw dama ñëw dama ñëw campénal jox leen ko xam ni ñoom ñi bisee gunu waa waa cent dëgg la am na ñoo xam ne ay korog lan korog sonel mën nga xëy suba rek ñu ne la diw jëlal sa bagas nga ñibbi mais ñii nañ leen wax vingt ans lañ leen di tëj juge bi loolu la leen wax diw tëj naa la vingt ans diw tëj naa la quinze ans moom moo moo leen tëj quoi mais suñu borom tëju leen loolu noonu sunu borom moom mooy namm jàmm bu ko neex mu ne la eh yow juge bi tëj na la quinze ans sunu borom ni kii deux ans lay def prison nga am deux ans ñu bàyyi la te juge bi bàyyiwu la xamul lu la lu la bàyyi loolu la yow nga ñibbi sunu borom moo ne yow doo fa def quinze ans moo tax juge bi day à peu près rek di tëj nii rek moom day day xool nit ku ko neex mu xool li nga def mu ne la tej naa la quinze ans nga def cinq ans baay la loolu gis nañ ko ah kon moom day tolluwaayam lay tëjee mais sunu borom moom tëju ko loolu noonu nit gis naa koo xamante ni tej nañ ko deux ans deux ans mu dem da am si ba si koso vingt ans. ñu tëj ko deux ans mu mujj faa def vingt ans. muy dépaysé di am ay dépaysé di am ay dépaysé ba vingt ans man teg naa loolu bët. kooko wax nag xam nga yenn gars yi nii ma seetaan man dinañ xam ne kii kan lay waxal mais du moo tudd tur xam naa ko. xam na ma di am ay dépassé di xeex di lañsate di xeex di def lii di xeex di def lii ba am fa ba am fa vingt ans kooku sunu borom moo namm loolu si moom juge bi lan la ko tëj deux ans mu dem ba am fa vingt ans suñu borom moo namm si moom juge bi tëj na nit tëj na nit vingt ans mu am fa cinq ans ñu bàyyi ko kon xam nga ne fii mbiru suñu borom moo fiy dox quoi mbiru juge bi dox doxu fi juge bi si tribunal bi la yam mais ñi nga xamante ni dañ yàlla dafa def ñu dugg fii. Euh, bu yàlla euh, defee ñu génn fii lan nga leen mën a wax ba la nga xamante ni mën nañ mën nañ koy mën nañ cee jàpp wala boog ba loolu dootu leen fi delloo siwaat lan nga leen di wax. waaw gars loolu nag lu yomb la quoi loolu lu yomb la fii soo fi soo fi jugisee soo su la yàlla teggilee natu bi nga nekk longu pen da ngay da ngay soo ñibbisee demal si sa sëriñ bi nga yaakaar soo ñibbisee ba nga dem si sa yaay nga gis ko mu gis la mu ñaanal la nga dem sa papa mu ñaanal la. demal sa sëriñ bi nga yaakaar mu ñaanal la nga dem ñibbi ci sa gaal la yow toog toog xalaat ndax fii nii soo fi nekkee doo def leneen lu dul xalaat nga toog xalaat bu doon maçon ngay liggéey soo toogee benn 15 jours noppaliku nga dem nga ñu ñaanal la sa sëriñ ñaanal na la sa yaay ñaanal na la xam nga. mais en général loolu du yomb parce que fii képp koo xam ni jóge na fi kaso boo ñëwee nit ñi dafa am bët boo xamante ni dañ la koy xoolee. daga la nan la koy xoolee mais yow yow bët boobu yow yaa ko dul xoolee sa bopp ñun xoolee nañ nu bët bu nekk barki alxuraanu karim mais bët boobu duñ ko xoolee ñun suñu bopp ndax ku nekk rek nit nga mën a doon nit ku nekk nit nga mën a doon xam nga nit waaw nu ma ko mën a waxee ko jurul jëndoo ko amoo si moom cofeel mën nga ko dëkkal foo xamante ni dëkku fa mais ñun xam nañ yàlla xam na ko quoi ñun lépp lu ñuy def rek ñun ak sunu borom la duñ def nit duñ def ngir nit non yàlla xam na yonent bi xam na. mu mhm. dee ay nit ñu bon lan ñu fi nekk wala ñun yàlla xam na mu dee ay nit ñu baax lan yàlla xam na quoi. soo amoon kàddu yu mujj lan nga ñuy wax ñu tàggatoo ba beneen. waaw su ma amoon kàddu gu mujj damay ñaanal damay ñaanal koo xamante ne nii yëkkati nga sa ñaar yëkkati nga sa ñaar jàppale moo ko si affaire bii nii jàppale ma ko si affaire bii ndax man affaire bi dama si xam waaye ba ma siy dugg dama si xam ni dama si am lu neex lu. lu lu lu lu lu kawe sama njort ndax dama dama dama dama dama yor sama sere di ma jàll pour lu ma indi si koso bi dajanteeg benn grand frère dajanteeg benn grand loolu daf ma touché mu ne ma mu ne ñang foo yóbbu lii ma ne nga lii waa Campenal laa ko war a yóbbu mu làmb poosam fekk si dix francs ñaar dërëm ni ma ñang ñaar yi def na si man ay une semaine mhm. yor bëgguma woon sax jaay loolu moo ma touché si affaire yi barki Seydina Mohamed mu ma ña ñaar dërëm yi def na si man ay une semaine bugguma ko woon jaay mais bàyyil ma jox la ko ma ne ko woy bàyyi jox ma ñaar dërëm yi mu jox ma ñaar dërëm yi ma dox ay quelque part teg benn tuut ang bu ndaw maa ngi weccit bu bëri jël ñaar dërëm bi jox ko ko ma ñang ma ne ko waaw booy bi si boppam mun ne ma ñang lii nag ma ne ko jëlal maa la may ñaar dërëm yi waaw booy bi ñaanal ma ñaan boo xamante ni non xam naa ne booy bi ñaan bii mu ñaan nii non du aasam ko waa gay am na lu ko suñu borom sol ba moom mu mën a ñaan loolu noonu. ma mm-hmm. xam ne affaire bii nii non man dinaa si am lu lu kawe suñu njorlu. Mm-hmm. te te tay rek beneen yoon am na ñu ngi ñaan yàlla xam nga bëgg na dem 100 ndax foofu noonu suñuy nit ñu ngi foofu suñuy raq ñu foofu suñuy papa ñu ngi foofu bëgg na dem foofu noonu defal leen comme lii bëgg nañ demaat tamit ba Fatick kaso fatik dama fa dama fa nekk xam ma suñ jugee 100 mètres xaw ma na kañ looy doon ñu ngi ñaan yàlla loolu bañ a sori. bëgg nañ taal oto yi dem ba Fatick def fa lu mel nii ndax xam nga soo jugee fii dem ba Fatick passé nga ay koso yu bëri lu tax jaaroo si koso yooyu noonu am na lenn lu nekk si biir lu tax jaaroo si koso yooyu kon suñ jugee fii di war a dem ba Fatick am na leneen loo xamante ne ñun jis nañ ko Fatick nekk nañ fa ay at gis nañ ko foofu ay nit di dee suñu kanam loolu ñun dañ ko dund kon suñ jugee fii dem 100 mètres suñ jugee 100 mètres dañuy dem Fatick nekk naa Fatick ay nit di dee sama kanam. nii ma yëkkati leen dem di leen yóbbu kon su ma demee Fatick war naa fa dem ah naa ñaanal nag gaynde gi di ko ñaanal bu baax a baax suñu borom bàyyi ko kii kii man mooy sama sëriñ barki Alaaji Fàllu Mbàkke kii mooy sama sëriñ kii mooy sama lépp kii mooy sama lépp kii sama genn wàll la kii man maa koy ñaanal yàlla sunu borom bàyyi ko fi ba yéene bu mu am su ñun sunu borom eggal ko waa di ñaanal nag sama gaay ma àndal waa Imam Malick xam nga ay ñoom ja njiñ Jóob xam nga lu wax nii xoos booy bii nii da see jàpp booy bii da see jàpp si affaire yi bu baax a baax dafa jël xaalis bëri jox ma affaire yi nag indi naa ko am na weccit bu ma dese xaalis bii nag xaalis boo xamante ni man maa ko maajal su ma si naree lekk ñaar dërëm yàlla na ma topp sama bàmmeel man du ma def lu baax ba bari di si jël weccitu jàmbur di ko si lekk su ma si naree lekk dërëm wala ma jël dërëm di ko def si sama bopp yàlla yàlla yàlla ma topp ba sama bàmmeel barki alxuraanu karim am na xaalis bu des mi ngi si man am na lu may lijjantiwaat su sotee damay dem 100 su ma jugee 100 damay dem Fatick waaw di wax nag gaynde gi tëj affaire yi waaw di ñaan nag ñëpp a jàpp si affaire bii nii waaw gaynde gi tëj affaire bi incha allah. Ah, gis nañ gis nañ gis nañ ni mu ko waxee waxee naa xol mais lan nga ñu ci dolli rek ñu tëj. waaw salaamaaleykum waaw Wassare TV ñu leen di nuyu di leen ziar ñaan saa borom sunu koor bi yàlla na ko yàlla boole si koor bi nangu. ñi tax ñi daje fii nii bay def lu rafet lii nii moom yàlla leen saa borom génn si natt bii ñu nekk ndax ndogalu saa borom am naa yaakaar ni xajul si nit yàlla nattu lay teg doomu aadama te bu la ko tegee nga yeyoo ko rek mën na la ko teggil di rafetlu lii ndax li dafa nekk lu riche lii lu riis la yombul de bàyyi sa lépp ngir ay nit xam nga àdduna moom looy dem ba looy wax day fekk nga miin maîtriser ko ba pare nga xam ko kii li muy wax nii da ko dund da ko dunda di ñaan saa borom fa mu demoon yàlla bu fa demati si ginnaawam tamit yàlla na yàlla jàppale ba lépp loo xam ne lu bon dañ koy bàyyi ndax lii ni nekkul lu lu yéeme ndax nit ay nit lañ dañuy juum mais boo juumee dellu si saa borom saa borom amul ku mu dul jégal si àdduna soo ko tooñee mu baal soo ko jégaloo mu baal mais bul ko defati moo ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla jàppale aar leen di gërëm sama gars yi yëpp si ginnaaw. di ñaanal wasaare TV moom yàlla yëkkati leen ba ci kaw ndax li ngeen di def dafa seen yëpp a ngi fi nag mais ñun bii mooy sunu seen ndax dañuy suivre làmb dañ koy doon di ñaanal champion bi nag fi mu bëgg a yegg si làmb yàlla ko saa borom yeggalee yàlla rek a man moo man mooy fal di faral di foral di fegal di fàggu kenn mënu yàlla rek a fi ne lu dul yàlla neen la kon nag am nañ droit ñaan ñaax leen nag moom sama waay la loolu la yàlla dogal kenn mënu si dara tout le temps Mhm. ma ma wax ko mu ne ma ñang damay teew tey moo ma woo te maa ko waroon woo. Mhm. moo ma woo. nga ne mhm. bëgg naa nga fasaaleel ma ko bu baax ak sama waa ji nii di nekk si film bi nii. waaw comme li mu wax rek moom lu mu ñu sant dañu koy def. loolu la yàlla dogal mais yàlla leen yàlla gën a yokk fii ak déwén yàlla leen yàlla may doole kàttan ba ngeen taxaw fu ñu leen di dégg yàlla mën na lépp yàlla na ko yàlla defal. gis ngeen ni lañ koy defee ci Wassare Lamb di leen jox dig daje ba beneen yoon. jaa ngeen jëf